voilà. tey jii renseignement généraux bu Sénégal wax nga ñoom ñëw leen seet si la ñoom lan moo nekkoon seen ay tànk dañoo ñëwoon di enquête si ak yow. yow yaa leen woo yaa leen contacté maa nañ ma yónnee élément pour sama conférence de presse bi démb. man maa woolu waa waa dem police judiciaire woo leen woo gis commandant bi nekk na mu yónnee benn élément pour mu ñu assister li may wax ndax li may wax sama m'intéresse beaucoup sama xol la nekk te dama bëgg génn si difficulté yi may dund parce que ñu lay accuser loo xam ne defoo ko dem dem tëdd kaso sax moom moo te man dama pare pour tëdd kaso mais pourquoi pas Lamine Diack ñu ngi ko àtte téye ko France nest lan moo tax nga gëm nangu nga ni tëdd kaso moo la ko gënal. alors ka yow en âme et conscience waa foofu xam nga ni defoo kon lan moo tax bëgg a tëdd kaso. pourquoi pas xeex ba njëloo la. sa parce que bu ñu la dugal ci benn pot. pour nga génn si il faut nga dugg si pax mi il faut il faut ñu dugal si kaso bi bu boobaa say dossier si lay génn juge bi si lay am jot nag di say dossier mais bu desee si rek si policiers yi rek ak procureur mën nañ patam patam bi dossier yi teg ko fee. mais loolu xel la te yow xam nga ni ñu ngi lay toppee loo xamante ni du lu ndaw est ce que duñ ci profité tamit. lu may wax ni lu ma xam laa lay wax nii waxuma la lu ma xamul voilà moo tax may demande justice li ma bind fii nag mooy da ngay toog juge bi wax ak moom ñu jox la ay avocat nga wax ak moom teg argument yëpp policier day juum de. gendarme day juum juge day juum euh, euh, euh, procureur day juum amul ku dul juum si liggéeyam parce que ay rapport rek ngay jot man man na maa ñoo am beneen intention bind si yow rapport boo xam ne boo ça sa rapport ñu koy topp di ko topp di ko topp mën nañ ko topp pendant des années saa boo saa boo saa boo bindee bu ñu topp ba mu yàgg nga defaat beneen rapport yi tegaloo bala nga see génn kan la. doo si génn doo si mës génn parce que loolu mooy seen système dañuy teg rapport sur rapport rapport sur yow boo génnee ñëw sa boo ñu bind si rapport même fu dee koo xam ne xamoo ko wax ak ko koy wër wala kooku jaaykatu drogue loolu nangam nangam fekk kon yow mhm, comprendre na jàpp nga ne tey jii jumte am na ci sa dossier li nga bëgg mooy bañoo ci sax ba tëdd kaso su ko defee ñu génne say dossier nga jàkkaarloog juge bi génne say preuve ñu setalaat sa loolu laa bëgg dama bëgg lépp lu ma mën a am ma jàkkaarloog juge en France daa ngi dégg waxtaanam sama dossier yëpp xam naa fa mu nekk wax nañ ma ko waaw tribunal bu Nanterre moo yor samay dossier tribunal grande instance bu Nanterre moo yor samay dossier mosuma fa dem nag xaw ma sax fu mu nekk waaye am naa information yu leer moom moo yor sama dossier yëpp waaw damm nañ fi sama loxo. xam bi sa bërëb liggéeykaay la wala jotewu la. dama doon dawal sama oto kenn bëkk sama gannaaw oto ma ne ko nañ constat ñu ne duñu constat. ku la doon topp wala citoyen français. doon topp la man xaw ma si dara xaw ma police loolu police mais daal mbëkk na sama gannaaw oto doon doon wax téléphone ma egg si si stop bi ma freiné mu dal sama gannaaw waaw ma ñëw ne ko dañuy constat waaw jëkkër ji ne du constat nangam ak nangam jëkkër ji ne ko taal oto bi nga daw ma dàpp te oto bi téye caabi ji ne ko dem ñu woo seeni mbokk mu boñ ma keroog doole ji ma àndal mënu ma ko wax parce que sportif la mun ñu jël caat bi waaye sama loxo bi lañ dem fii ma porté plainte ba sànq te bu ma ko defoon français tey maa ngi ci kaso bi. mujjul fenn plainte ba léegi yooyu yëpp mi ngi fii parce que xam nañ ne loolu la ñu bañ ma teg ko ci yoon bi te xam nañ su ma ko tegee naa naa naa am samay droit bis bu juge jotee naa am samay droit parce que dossier yaa ngi fi dossier yëpp maa ngi ko teg plainte beeg yëpp maa ngi yor yëpp ba léegi dem na ba constat bi nga xamante ne la police def. ci accident bi sama loxo bi dammee ba jógee hôpital ba bañ kii ko pare bañ tabax ko ba pare nga xam ne toog naa quatre ñeent quatre mois yoo xam ne liggéeyuma ñeenti weer waaw war a fay location war a yónnee sama njaboot yorutuma dara ma parce que yorum man ay boîte intérim lay liggéeyal euh, voilà toog naa ñeenti weer yoo xam ne liggéeyuma liñ may fay 500 euros mënu ma see fay location yónnee sama njaboot bëgg see lekk déjà sama location rek cent euros la dama mu dama yoreel arrière rek 4 mois de arrière location. bi ma commencé liggéey laa commencé di ko remboursé di ko remboursé ba mu jeex mois ba lay euh, avant may ñëw. tax fay ñu la 4 mois yooyu nga toog dina si sa période accident bi la. waaw non accident la mais boobu dafa fekk man am nouveau contrat war a jóge si contra war a demaat si contrat man dama doon liggéey liggéey liggéey boobu ma arrêté foofu war a demaat si groupe 26 pour a dem liggéey beneen contrat la défense léegi bi ma demee am fu ma gaaree sama oto oto bu ñu ma abaloon fu ma ko gaaree ma réer ba. xam parce que foofu dafa ruqan ci sol la woon ak ni ñu ko liggéeyee ma gaari oto bi oto bi réer ma mun ñu koy wër nag ñaari fan mun ñu gis xaw fu ma gaari oto bi léegi maa ngi sama benn xarit ñuy wër oto bi ci ci boori ay timis yooyu di wër di wër di wër di wër ba ba noonu dégg nga mënuñu ko gis ci lañ def accident boobu ci cour de euh, cour de voie donc voilà affaire bi demee noonu ñu damm sama loxo léegi nag li ma ci gën a jaaxal nanguñu affaire bi dem pénal mais assurance bi nangu na ma remboursé. pour ñu réparer sama oto fay nañ ma 800 800 euros pour ma réparer ko mais ñeneen ñi damm sama loxo bi moom bëggatuñ ci wax si parce que xam nañ suñu demee tribunal ñi ma sot nañ am problème nañ leen déféré nañ am problème judiciaire peut-être en même temps dinañ ma fay samay droit loolu lépp ñu bloqué. mais ñu ba tey nga dem nga dem justice. ñu ba tey dem justice déedéet ñu awokaa bi ma ko mujjee jox sax mi ngi fii euh, mi ngi dafa jël dossier ba ci biir mu teg ko ci suuf naan ma damaa nii damaa naa xam naa am lu ñu ko wax yàggul dara daaw jeeg daaw rek 2019 laa ko jox dossier bi parce que dossier bu ëppee bu ëppoon 5 ans rek day day yàqu yaa ngi dégg parce que dossier dafa am foo mu muy yem comme accident travail dossier bi mën naa dem 10 ans mais yu mel nii yu comme pénal yu mel nii cinq ans la léegi manipuler nañ ma ba bu ma am benn spécial bu ma am benn moyen bu ma mën a avancer pour mën a dox ci dossier ah mënoo leen a si su ma demee tribunal si ma taxaw si kanam juge mën naa leen a topp loolu juge bi rek mu mën a déclaré déclaré parce que def naa li ma war a def lépp dem naa parce que France bu ñu la dóoree wala ñu gaañ la police France dañoo am seen i médecin ñoo lay consulter defar dossier defar la capacité te dossier yaa nga fa. d'accord léegi tey jii mën nga retourner France yow librement. waaw yaakaar naa ko de j'espère waaw su ma paree li may def kay. dama am rendez sax à l'hôpital dañu war a opérer fan yii. war a retourner nekkoon ci ci dans les jours à venir. léegi accusation accusation yi nga xam ne ngi la koy toppee mu ngi sévir foofu ba tey muy jihadisme bi wala instant yi ñu la ko kii dañu. en pour les mois man yaakaar naa ne actuellement arrêté nañ ko si li ma gëm. mais nag site bi toujours dafay nekk waaw site bi dafay nekk parce que. parce que bu njëkk dañ duñ ma bàyyee woo woo nañ ma fii sax keroog si téléphone bi sama téléphone fixe bi fii benn numéro inconnu comme yi ñu ma daan def def nañ ko. ñoom la rek c'est la même chose. ñoom rek ñoom Wassare renseignement ñooy def loolu. kenn du ko def yii yëpp numéro ñoo ma koy bind gisu moom bind ko ni envoyé ko collègue yi pour wane leen numéro yëpp xaw ma leen dañuy jëkk ay dañuy changé ay numéro rek façon numéro bu ne dañ ma ko wooyee mais numéro yi boo topp indicatif bi Tunisie la Maroc Algérie dégg nga Mauritanie ak yooyu. te man ma liggéey ci loolu lu am solo liggéey naa si ba nga xamante ne am na si ay imam yoo xam ne jëlee nañu France yóbbu leen. lan moo tax ñu dañ leen doon soupçonné de ji de jihaad ñoom tamit. bon en foofu laa mën a yem. waaw liggéey naa lu bari daal pour la France. waaw lu bare bare bare bare bare bare te nag képp ku wedd ne jihadis si nekkuñ Sénégal yaa ngi nax sa bopp ma leen koy confirmer tey di ko confirmer sama service renseignement. dama bëgg Sénégal nañ sénégalais yi nañ def attention ñu ngi fii. li ngay affirmer nii say renseignement yi nga doon liggéey moo la ko may. li ma wérti wóor bu ma mën na maa toog ak service rajo xam nga nanguñu maa nanguñu maa recevoir wax ak man li ma bëgg waa Sénégal waa service renseignement généraux nanguñu bëgg a toog wax ak man ma jox li ma xam lépp ak li newoon vidéo yi ne fii yóbbu nañ nag cassette yi euh, kii yóbbu nañu vidéo yi ma yoroon si kii yii yii waa waa waa police ma ko joxoon appareil yi mm-hmm. bi may liggéey ak ñoom. ñoo ma ko joxoon waa renseignement ñoo ma ko jox après bu mu paree liggéey lañu ma ko jox mu amoon ay ay ay ay ay carte mémoire yu ci nekkoon waa police jox laa la ñu exploité nañ ko nee nañ fekk nañu jël yëpp ma ne ko mën na nekk. waaw mais carte yi amoon na image parce que man dama ko daan seetaan ma daan chargé batterie bi di seetaan image yi mais bi ñu xamee ne ñëw nañ sama kër ma amoon ay ñetti clé USB yi mel ni ay kii yi mel nii defoon ci ay document bu ñu ñëwee sama kër ubbi ko si la ñu carte yi vidé ko jël sama clé yi ñetti clé yi amoon document yëpp vidé ko bi ma jëlee document yi war ko indi fii si clé yi pour déposer ko bi ñu ñëwee bi ñu ko dugalee document vide te sama assistance sociale moo ko téléchargé yëpp man moo ko daan dugal sama ordinateur bee di ko gis ma xam ne ñoom ñoo fa jaar maa ngi koy wax démb rek euh, commandant bi ma wooye téléphone naan ma kay fii kii amul dara donc voilà ma ne ko ñoom ñoo fa jaar ñoo jël mais dossier ngi soon si biir waaw lépp a ngi yoon ci biir waaye euh, ak lan. que question il faut qu'on fait attention encore. Hmm. il faut qu'on fait attention nañu moytu détails yi tey surveiller suñu traitoire yi bu baax te surveiller nit ñi ñëw suñu biir. te li may ñaan maa ngi maa ngi lancé appel si ministère intérieur. gendarmerie nationale ak police nationale nañu fexe ba oto yi nga xam ne dañ leen di def vert tent fumé ñu dindi ko Sénégal vitre teint yi nañ ko dindi bu ñu ko mënta dindi mën ñu ko dindi ñaare vitre yi ne ci kanam nañ ko def comme France nañ ko dindi bu doon normal si ginnaaw ñu bàyyi ko loolu lay ñaan ministre intérieur oto yi amul plaque yi nañ fexe jóg si oto bu amul plaque bu mu dawati li may wax lu ma xam la. te lu ma xam la te lu ma xam la wallahi azim mën nañ si jaar si Sénégal vitre teintée yi vitre teintée yi nañ si jóg maa ngi ñaan ministre intérieur maa ngi koy xool ci biir bët maa ngi lay ñaan monsieur le ministre ak toutes les directeurs renseignements généraux et les directeurs sécurité intérieure Sénégal nañu jóg ci oto yi nga xamante ne ñu leen neex def ku la neex jël sa oto def sa vitre nu mu la neexee jugal ku sa neex ci biir kenn du ko gis kenn du ko xàmmee nañ def attention nañ def attention encore une fois maa ngi leen di lancer appel boobu di ko lancer ministre de l'intérieur ak toutes les services euh, renseignement Sénégal waaw bàyyiwuma nag ba ci ñuy liggéey si nguur gi yépp nañ yemale ñépp waaw ñii nekk ci policier ak ñépp nañ yemale ñépp. teint yi virtu teint yi ñenn rek ñoo ko war a am mooy les hautes grades yi nga xam ne dañuy jóg dégg nga si yenn liggéey yoo xam ne dañ koy jóg maanaam tey ji bu ñu tey ji am na si secteur section ba section boo xam ne bu ñu jógoon di dem ci seen oto yi kenn du leen xàmmee si biir ndax seen liggéey moo leen ko permettre mais du ñu bàyyi sàmba sura baali su jóg rek jël sa vitre teintée dégg nga tëj sa oto ba mu fees dugal si ku la neex di tourner kooku yoon ko dañ ko war a taxaw mu jeex maa ngi koy ñaan monsieur le ministre. Euh, monsieur le ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome yaakaar naa dégg na sa sa sa appel parce que li nga joxe information de taille la et puis c'est question de sécurité nationale yaakaar naa ni ñàkk recevoir bi nga wax sax dina mujj dañ parce que dinañ la recevoir parce que lii euh, dafa nekk lu nga xamante ne ñun ñëpp la concerné euh, beneen bi pour tënk rek laataa ñëw teg ci li nga xamante mooy sa tey attachement bi nga am ci pays français bëgg bi nga xamante ni moom nga bëgg réew français sànq yaa ngi koy junj am na français yu la doon wax sax pourquoi pas doo ñëw fii Sénégal xam-xam mi nga xamante ni yàlla may na la ko macha allah si li ngay liggéey nga ñëw partagé ko fii puisque yow yaa ngi dund injustice foofu pourquoi pas nga ñëw dellu si sa réew sa nation bu fi say école formation. wala question bi nga may posé loolu lu solo la. sama bit tey def naa créé sama entreprise parce que yoroon naa entreprise am na documents Euh, maa ngi lancé euh, monsieur le président de la république euh, ak membre gouvernement bi yëpp damay ñaan président mu jàppale ma fekkente dama tooñ waa France wala ma def lu jaaduwut na état administration française def seen liggéey si man fekkente nag tooñu ma leen nañ ma delloo samay droit liñ ma diggoon nañ ma jox kër nañ bàyyi sama njaboot dem daan seen doole ndax ay étudiants la ñuy jàng rek dégg te samay droit accident de travail ak lépp lu ñu ma fay rek lañ ma ko jox li ma liggéeyal France nag kooku liggéey France laa ko liggéeyal li ma liggéeyal France ci sécurité France laa ko liggéeyal maa ngi ñaan président de république maa ngi lay ñaan nag ma jàppale si loolu ndax man defuma dara waaw defuma dara maa ngi lay ñaan monsieur le président di ko ñaan membre gouvernement bi yépp di leen ko ñaan lépp lu may wax nag am naa preuve courrier bu ma yónnee it li lan la accusé réception. binduma kii rek kayit kuréel bu ma yónnee rek ànd ak accusé ma denc ko yeneen accusé yaa ngi fii tamit yoo xam ne moom lay doon yu koy suivre amul ci benn kurée boo xam ne dama ko bind bind ko mu dem vague nii lu si ne am na justificatif donc damay ñaan monsieur président bëgg naa sama réew bëgg na maa investir sama réew bëgg na maa ñibbi sama réew dama bëgg ñu fay ma sama droit ma ñëw former jeunes yi def sama xam-xam ma bëgg def ñëw bëgg a liggéey nag si terre bi jàppale tamit waa terre bi waa SMR. li nga xam ne moom laa ci bëgg bëgg na ma euh, discuter tamit ak directeur SMR bi nga xam ne ne moo fi nekk parce que je professionnel dans le voies ferrées xam naa si lu bari te it am naa ci xam-xam ci train it am naa ci xam-xam surtout réparation bi monsieur le président une fois que maa ngi lay ñaan nga jàppale ma ci dossier bi ba mu set suite bañ fay ma samay droit waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi sant euh, waa journal info Thiès kes info merci beaucoup. ñu koy jaajëfal bu baax a baax moom Daouda Beye mu nekkoon tey édition spéciale euh, moom Daouda Beye dégg ngeen ko li mu wax euh, situation bi mu nekkee ak injustice bi nga xamante ne ni wax na ni dund na ko réewum tugal moom ne woon di fa daan dooleem message bi mu lancé itam yaakaar naa ñi ci war a jot dinañ ci jot euh, su ko defee rek lépp daal di jaar ci yoon itam bu fekkee procès daa war a am nee moom ragalul benn yoon taxaw ci yoon bu ko defee rek ñu fay ko li nga xamante ni moo di ay droit kon mbokk internet yi loolu la nekkoon tey édition spéciale ak Daouda Beye jaajëfal leen bu baax a jox leen dig daje rek beneen yoon incha incha am na ku jël sama papier peut-être sàcc ko def ci leneen wala man foofu laa daal foofu laa gën a ugé visé mais am na tamit lu ma si xalaataat mooy bi mu ne ma est-ce que demoon nga Amérique latine loolu après la ñëwaat sama bopp bi li tax mu ñëwaat sama bopp bi nag naa fi ñëwaat nag fi mu am gën a am importance mooy keroog bi nga xam ne Martinez mi ngi war a dem Marseille alors euh, mu mu woo ma ma ñëw équipe bi yëpp ñëw ñu dajaloo on était équipe maa ngi si biir équipe bi ñu dajaloo. mu ne ma léegi man ñu man maa ngi dem mais Laurent Daniel ñoom ñëpp ngi fii nañ occupé say affaire sa dossier mi ngi en cours nañ la jox lépp bul wax dara man maa ngi dem mais yow maa ngi sa numéro dañuy déggante tous les jours y a pas de voilà man sax suma sañoon nga ñëw ànd ak man Marseille ñu dem mais lañ ma la ma daan liggéey ñëw maa dem Marseille parce que xaw ma damay dem dugalam foofu dañ ma fay rey rapidement parce que kenn xamuma fa waaw donc xaw ma moo tax ma ne ko man bon waa je vais bon voilà mais man mujj ma dem Marseille mujj ma dem Marseille ak moom waaw xaw ma nag lu mu si jubloon pour ne ma ne ma naa ñoo dem Marseille ak moom mais voilà léegi nag bi ñu fa jógee keroog ñun ñëpp a jooy tàggatoo boobu keroog euh, vraiment ñi am foi yëpp jooy nañ keroog ndax xam nañ ne man mii euh, def naa fa lu rëy def naa fa lu bari joxe naa fa ay rapport yu bari yoo xam ne tax na ñoom ñu man see sukkandiku ba def si lu bari man loolu xam naa ko man loolu moom du ma sax wax waaw xam naa ko moom. yaa ngi wax sànq ci sa ay euh, biiri wax danga nga njortu ni ci li nga xamante ni euh, ñu ngi la koy toppee euh, ñàkkul ni am na xëy na ku sàcc say papier def ci leneen tey jii li ma lay njëkk a laaj sax balaa loolu est-ce que mës nga njëkk am problème ak justice avant lii di parce que sànq for naa ci say biiri wax nga ni un yaa ngi dem di porter plainte fekk fa maintenance fekk dafa am naar boo jotee loon loolu histoire boobu lan la woon ak sa question liggéey la naar bi dama doon defar otoom mu bañ maa fay di ma dawloo ma yóbbu ko police pour mu fay si ma foofu laa xamante ak Martinez du ko problème man mosuma am justice ni Sénégal ni France man sama cas judiciaire alhamdulilah rabbil alamin mosuñu ma condamné mosuma am problème nekk naa Sénégal di liggéey def naa 14 ans Casamance liggéey su leneen liggéey ku ne man musuma taxaw ju tribunal benn yoon laa mos taxaw tribunal sama premier femme ak 87 mu yóbbu ma tribunal waaw Tambacounda waaye mosuma am problème boobu man du ma sàcc du ma fenn du ma lekk alal du ma tux ma naan liñ lay toppee liñ lay toppee ñu ngi koy tudd sànq ba tey yow. waaw bi nga xamante ne tàggoo nañ nag maa ngi monsieur Martinez li may wax ni lu am lu solo la te sama bëggoon nag bis ma taxawee si justice France man dama bëgg sax taxawaat si kaw kanamu justice France justice France parce que ñaar yoon yi ma dem justice yëpp. pour man bon si problème papier la da war a am papier bon normal la dañu defal QTF donc war a war a quitter trottoir waaw man loolu laa jàppoon bon moo tax mënu moon exprimer dara si kanamu juge bi loo xam ne lu waaw mais xaw moon non boobu xaw moon exact lan moo xew parce que boo tamit xam nga loo xam ne mënoo jékki-jékki rek nangam te xamoo lu xew mais li ma gën a am confirmation nag mooy Gerkaro bi Martinez waree dem mu may mu mu wàcc ba ci suuf mu dugal ma benn bureau wax mu ne monsieur B mu ne ma sincèrement tu étais recherché. mais ñu ngi la doon wër. mais nag c'est fini pour toi waaw va rester avec Laurent on va te donner tout ce que tu veux mais fais attention mm. ma ne ko d'accord. effectivement fais attention ma dama ci def attention bu baax waaw parce que ñoom li ma gëm laa wax de sama xalaat bopp ñoom yaakaar nañ ne relation bi ma am ak Martinez kon Martinez dafa am leen lu muy camoufler sama diggante ak moom peut-être li ma ko ñoom. gëmuñu dem nañ ba gëmatuñu Martinez ba xam est-ce que dafa est-ce nekkul di ma jàppale man lool loolu laa gën xalaatee daal waaw. ñenn ñoo doon yaakaar loolu ay supérieur Martinez. ay collègue am ay patron moo tax moom bi mu demee rek. don bi daa commencé changé ñu bëgg maa teg yeneen pression yu ëpp yu ma Martinez doon teg. ci wàllu liggéey bi nga doon def yu pression yu mel na. waaw maanaam bëgg maa dugal si yeneen danger yi gën a dangereux si wàllu liggéey bi. après fekk nag. Ah, xanaa liggéey bi nekkatul juste renseignement ay nit ñu lay demander seen information. waaw mënuma sori si mm-hmm. loolu foofu rek laa mën a yem si liggéey bi foofu laa mën a yem li si biir yëpp mënuma ko wax foofu rek laa mën a que tamit secret judiciaire la euh, ce que euh, tey risque ngay wax nga doon encourir est ce que euh, sa bakkan mënoon na la comprendre man li ma doon def yëpp danger la sama bakkan waaye nag li ma si yàlla mayoon sens dama doon nit ku simple. lu ma bëgg a am mën naa ko am si renseignement dama ouvert te sama alal du ma boole kenn waaw sama alal daw ma boole kenn lu ma bëgg am mën naa ko am fu ñu ma yebaloon su ma demee lu ma fa bëgg am mën naa ko am mais benn cinq francs mu suñu ma ko jox samay téléphone laa doon utiliser téléphone bii bis bu ko police judiciaire Sénégal jotee bu ñu ko exploité nañ ci gis lu bari A3 a a a kii bi iPhone 3 bi. téléphone bi nga doon liggéeyee ci renseignement généraux. ma doon liggéey ñoom ak sama numéro téléphone bi 06 11 17 05 98 du ma ko fàtte mémoire bi téléphone baa ngi fii numéro boobu moom la ëpp li ma liggéey ak Martinez man dama daan liggéey téléphone bi pare ñoo jëbaleen téléphone bi dem liggéey ñoom ñu def exploité yëpp ba pare dellu si waat ma téléphone bi voilà léegi bi ma Martinez waxee loolu nag ne tey tey tey mais pour moi c'est fini waaw maintenant continue avec Laurent on va te donner tout on va te donner les titres de séjour on va te donner monsieur Daouda ma ne ko d'accord je confie à toi y a pas de souci monsieur Martinez ñu akolaat vraiment ñëpp ñu jooyaat fi mu taxaw vraiment ñeewante lu bari am sama diggante monsieur Martinez franchement xaw ma mu ngi si service ba léegi xaw ma bàyyi na waaye fekkee ne yàlla dëgg dëgg lay fay ak xol même bu bàyyi woon police dina am lu ko dina am lu mu bëgg. ndax xam naa ne am na lu mu yéene woon ci man am na lu mu bëgg si man ndax dem na ba xam na ne man mii duma ci dara maa ngi koy souhaiter monsieur Martinez je te encourage encore si Dieu veut tu sais que toute que vous toute chose que vous m'accusez je sais que c'est faux il y a rien dedans pour feex moi mais je te comprends tu as fait tout pour moi monsieur Martinez je te remercie encore une fois quel que soit Alpha ouais Euh, si je comprends bien li nga xamante ne ni moom lañ da doon toppee monsieur Martinez boobu approché na la intégré la ci renseignements généraux yi euh, topp la ci li nga xamante ne moom lañ lay topp dem ba benn instant mu xamante ne nii xëy na takkee woo ca wala euh, mbir moomee dafa juumoon tey dama bëgg exactement nga ñëwaat ci li nga doon toppee lan la exactement. li nga xamante ne yaa ngi koy li ñu may toppee fu mu ne nii mënu ma la si wax dara madame. xaw ma lu ñu may toppee ba léegi. dem nga ba ci kanam justice euh, def procès xanaa foofu ci ci procès verbaux yi wax nañ exactement monsieur Beye vous êtes poursuivi par tel ou tel. non non non procès yi ma yor yëpp tribunal yëpp a ngi fi benn procès verbaux bu mën a wax ne man lii lañ may toppee. li ci nekk daal mooy euh, dañ la jox euh, obligation de quitter le territoire français. parce que amoo autorisation deuxième deuxième fois ma demee tribunal sax xam nga demee jox samay ma jox kayit loolu la le juge bi rendre. moom le juge bi rendre ma dem ba dugg ba ci biir ba ñu dem ba ci biir ñu bloqué waat kayit à la niveau kan nga xalaat moo nekk ci ginnaaw blocage boobu déjà en premier lieu préfet moom moo la njëkkoon a jox obligation de quitter. Mhm. gis nga France ñi baax ñoo ëpp ñu bon ñi kàccoor ñi baax ñoo ëpp fopp ñi kàccoor waaye ñi kàccoor. ñoom ñoo accès mën a def lu ne ci biir service yi y a des voyous et des bandits yi nga xam ne ñi ngi ci biir police bi loo xam ne yu mel nii rek a leen neex bëgg laa déstable te ñi koy def du ils sont pas d'origine français. boo gisee euh, ils sont à 100 pour cent français man maa la koy wax man xam naa si dara. ñuy def ay rapport yu jëm ci yow parce que ñoom dañuy def rapport ci yow di la teg ay charge di ko jox muy dem ci procureur procureur bi di jot. damay dem ba mu gi procureur daf may topp comme ça ma dem ba xàmmee procureur ma ko gisee dama koy xàmmee daf may topp si lii yëpp procureur Vadoise ki xam ne mu ëpp renseignement si secteur boobu daf may topp day ñëw fi may liggéeyee mu gaare oto mel ni kuy defarlu wala kuy nettoyer ma di ko gis waaye ça m'intéresse pas parce que ban xam naa ne dañuy sonn rek mun ñu am lu dara lu ñu may jàppee tudd teel ak li ma bëgg a wax dama koy wax ko su ma waxul téléphone lan lay Je peux envoyer les message tous les jours. Moi, je suis ma on m'appelle, j'appelle. Je fais mes commandes. Je parle au téléphone, M. Martinez. Mon oui, mais il faut faire attention, les téléphones, tout cela. ñëpp di si jot te su fekkoon ne ma discrète wala may def nii wala may def naa xëy na peut-être mën a am soupçon bu gën a bari si man di ma topp waaye man waxkat laa am lu may nëbbatu lu may wax am lu mu nëbb euh, Euh, bi loolu passé nga xamante ni yàlla dogal na euh, à Martinez dem ba ma des ak Laurent ak Daniel ak euh, Midune ak voilà équipe bi comme ça affaire yi commencé changé doon bi commencé changé bëgg maa teg benn charge yàlla def récépissé bi ma yoroon ñu def si autorisation travail ma demandé benn formation rapidement. mujj nga jot sa autorisation de travail kon. Ah, autorisation de travail après après bi Martinez demee. la am autorisation travail sama récépissé mais yorul jotaguma tikkaat séjour bi d' abord après ma am formation FAP FAP si la def diplôme bi doon soudeur soudronnier polyvalent si la obtient sama diplôme bi diplôme bi Europe moo koy financé moo tax une fois may remercier les communautés européennes documents yëpp a ngi fii waaw ki mooy diplôme bi nga xam ne moom laa yor catégorie cinq quatrième catégorie man tey suñu ma bàyyoon ma liggéey ak ma libre chaque weer mën na maa fayoo ko 2 millions ba dem 2 millions 500 waaye dañ ma bloqué si lépp voilà ah maa ngi juutal la affaire sax voilà voilà kii mooy document bi xam ne mooy loolu. kii mooy attestation document bi nga xam ne mooy valider sama capacité travail comme voilà document yi ma yore c'est polyvalent kii mooy sama document laa ñuy wax sécurité maanaam booy liggéey si entreprise ak yépp xam ne li ngay def ba moytu ba doo gaañu ba doo gaañu ak yëpp mu ngi nii yooyu mooy document yi xam ne def naa ko yeneen formation ak yeneen formation yoo xam ne sax document yooyu yoruma ko fii voilà. boo gisee sànq sama question bi ma laaj ndax jotee amul koo fa mës a joteel ci wàllu justice day indi sa wax bi nga xamante ne moom nga wax sànq ni kàccoor am na ñu nekk ci biir di jaxase def rapport ci yow tey ji est-ce que dafa am koo xamante ci police la nekk moo xam nit ku ñuul la wala nit ku weex te nee nga yaa ngi wax sànq sax say biir wax duñu à cent ñooñu duñu nekk français en général lu ci bari aussi euh, soxorante mën na am foofu ci seen biir yéen doomu Sénégal te yaa ngi wax sa liggéey itam dégg naa say wax euh, macha allah yàlla jàppale woon na la ci est-ce que njortoo ni ku la soxoreel wala koo mës a joteel euh, lu mën ci am mu dem def rapport ci yow wala say papier mu def ci leneen lu nga xamante ni mën na nekk parce que fekkee ne tey recherche après li ma gëm ne magasin fekkee tey recherche policier bu nekk day ñëw si yow ñi dañuy ñëw préparation oto ñi dañuy ñëw pour sa kër dañuy mën na nekk. ñuy ñëw di similation léeg-léeg ma xuloog nit départ nga ne doo ma fay ma jàppanteeg yow loolu def ñooñu ko ba tàyyi te damay dem ba ci biir ma xam ne ñu koy def ay policier lañ waaw ah, ma liggéey la sa oto. ay weex quoi. ay nit ñu weex oui ay naar ay nit ñu weex hmm, ay ay nit ñu ñuul day am parce que secteur police moom c'est de renseignement une fois ñu ne tey recherché yow déjà dañ la fiché S. cela veut bu ñu la fiché yow mooy yow foo génn rek policier bu ci nekk rek am na droit si yow muy civil muy antenne sa téléphone day connecté ak police yëpp foo leen rombee day day day dañuy signaler sa télé seen téléphone. loolu dem naa ba xam ko dem dem naa ba xam téléphone loo xam ne sax ku jàng mënu koo xam te ñoo ma ko jàngal waaw euh, bref mënu ma sori si secteur dafa bari dafa ba bari problème mu judiciaire bëgguma si bu baax ndax. Euh, ñetti at du ñetti fan dama daan topp dara gis ku may topp bi li may xam ne kii daf may topp bu ma demee ba benn jamono may dem commissariat laay dajeek moom foofu ci biir wala ma dem beneen secteur beneen commissariat ma dajeek moom ci biir ma xam ne kii moom ma daan topp te ñoo ma ñoo ma yebal de ñoo ma yebal foofu pare mais yéen yebal beneen agent bu may topp yooyu yëpp ma dund ko. moo tax une fois que tamit maa ngi remercier suñu service renseignement nañuy def rapport si man ñëw nañ ba sama kër fii di ma fekk di ma di toog ak man fii ànd ak na dañuy wutal doom bi fekk dañuy dégg maa ngi wax dama bëggoon jël appartement fii pour may étudiants yi nga xam ne amuñu moyen ma leen di fayal en attendant comme sama étudiante laa yore dama bëgg social dama def social lu bari. renseignement yu yu Sénégal. ñëw nañ ba fii ñëw fii waaw dama am sama doom buy jàng si dama bëgg nga jël ko est ma wax a wax ba jëlal ko néeg yooyu yëpp ba sànq ñëwaatut mu mu may daw la ma xam ne service renseignement la parce que seen liggéey la ça me yan yan yan nga am ak ñoom tey ak tey jii bi nga amee problème foofu est que ñoom rap def nañ rapport. une kenn ku ne day am accès si yow képp kuy liggéey ci pour dem accès si yow. kon yamatul ba yamatul ci service renseignement français mais bi nga ñibbisee fii yu Sénégal dañ lay topp. dinañ ñëw am solo léeg-léeg si kanam tuuti nañ fi ñëwaat bon mënuma def naa lu ne pour ñu jox ma un carte de un an de dix ans ay un an rek lañ may jox renouvelable depuis deux mille quinze ba léegi un an renouvelable lañ may jox te may liggéey doon nit koo xam ne li ma xam si xam-xam ci wàllu liggéey tubaab bi sax dama leen di jàngal parce que je professionnel dans les voies ferrées xam naa si lu bari. te it am naa ci xam-xam si train it am naa ci xam-xam surtout réparation bi monsieur le président une fois que maa ngi lay ñaan nga jàppale ma si dossier bi ba mu set suite bañ fay ma samay droit waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi sant waa journal info Thiès Thiès info merci beaucoup. ñu koy jaajëfal bu baax a baax moom Daouda Beye mu nekkoon tey édition spéciale euh, moom Daouda Beye dégg ngeen ko li mu wax euh, situation bi mu nekkee ak injustice bi nga xamante ne ni wax na ni dund na ko réewum tugal moom ne woon di fa daan dooleem message bi mu lancé itam yaakaar naa ñi ci war a jot dinañ ci jot euh, su ko defee rek lépp daal di jaax ci yoon itam bu fekkee procès daa war a am nee moom ragalul benn yoon taxaw ci yoon bu ko defee rek ñu fay ko li nga xamante ne moo di ay droit am kon mbokk internet yi incha allah.